يا خير ضيف الأدى بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا بالأعداد السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen naafila guddik tey di dëppook talaata ñeenti fan ci weeru mai 2021 sëriñ bi dafa wax ni guddig ñaar fukkeel ga ak ñaar ku ca julli ñaari rakaa bu ci ne fatixa benn yoon ak sabi isma ak ina anzalnaahu ak qul huwa allahu ak falaxi qul a'uuzu bi rabbil falaq ak naasi qul a'uuzu bi rabbin naas lu ci ne ñetti yoon ne loolu ku ko def yàlla dana ko tabaxal ca àjjana juróom ñaar fukki dëkk yoo xam ni bu ci ne junniy njende dana ca nekk njende lu ci nekk junniy néeg dana ca nekk yoo xam ni wurus xaalis lay doon néeg bu ci nekk junniy lal dana ca nekk lal bu ci nekk junniy soxna nekk ca kon julli gaa ngoog yàlla nañu ko saa borom man loo te ñu def ko te def ko ni mu ko bëggee mu nangul ñu ko fulal ñu ko làq fa yàq eggul barkat Cheikh al Xadim yaa xayra day fil aada bil birri wal madadi halan wa sahlan wa tarhiban